ay morceau yu xonk ñoom nag ñu daal di naqarlu tabb ma neex yi fay am ak sabotage yi ñu fay nemmeeku. respecté wuñ benn plan de carrière tey nan nga mën a nekkee receveur tey suba nga xëy ñu def la cadre directement 22 ah bis ñu toj démb si guddi jaaxal nañ ñun te ñun ñu ñuy liggéey Dakar di kenn gënu bugg si si suñu alal. yëf yi nekkatuñu këttuñu jonn jëwriñ gi gàlloo dem beeg dikk bi daal di ñëw ngir saytu li fi xew ba muy ñëw nag laam-laame di am ci yoon bi mu nar a aw. El Malick Ndiaye nag daal di joxe ay garantie ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo lem seen i yoxo. xëy na yenn doxalin yi de dernière minute ak yenn nomination yi ma leen di xamal ne du Dakar dem dikk kese. te ñu ngi ci liggéey guddeeg bëccëg pour saafara ko. enquête dina ubbeeku incha allah pour ñu xam lan moo xew réellement. njiiti nag daal di ci porox ndollu ngir daal di ñëwaat ci li ñu xaarandi ci jëwriñ bi. maintenant c'est son secrétaire de travail demande pour éventuellement avoir des garanties. moom nag mu daal di dogu ne dina ci andi ay saafara muy daal di ñaan ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy gréw yi si ñu daal di dakkal seenub gréw. suñ leen ko waxee mën ngeen koo gëm. gëm nañ ko monsieur le ministre. waaye su ma sañoon su ma génnee ngeen duggaat seen oto dem jëli sénégalais yi. ci ndorteel gi nag mu mel ni liggéeykat yi déggoo wuñu woon ci kàddu. gannaaw bañ amalee ay waxtaan ñu daal di fësal dogal bi ñu jël. ngeen jox. daje suba travailleurs dinañu reprendre service bi mu dox ñu yóbbu Sénégalais yi ñu dem ak soxal nag yàqu-yàqu yi ñu nemeeku ca Dakar dem dikk gannaaw gendarmerie police daal dina fay ñëw ngir daal di dajale ay preuve mu mel ni nag ñi ko def du yàgg ñu daal di leen teg yoxo bu ñu sukkandiku ci ku jege boobu le mbir